jullit yi nga xamante ne ñi ngi teewlu si sit bi di Diassi yi di di topp li nga xamante ne euh, mooy suñu njëriñal diine te looloo tax yàlla sàkk ñu e, ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara si e, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu tey ñu ñëw si buntu bi nga xamante ni mooy eh, nit munul jaamu yàlla tànk laabul jaamu yàlla bu mënti fonggalap nag faw nga laab faw nga set eh, doogo jaamu yàlla parce que yàlla moom moo ko eh, in kuntum junuban fa denga dégg ñu wax ne tey ñi ngi si buntu bi nga xamante ne mooy bunt at tahaara ñu ne fastun buntu buy tàqaleel fi taharat ci laab ñu ne at taharatu laab xismaani ñaari xaaj la dégg nga taharatu xadasin mooy laab ci sobe dégg nga wa taharatu xabasin ak laab si tilim tilim laab ñaari façon yi rek ñoom ñoo am laab si sobe comme ni mel ni saw wala dem ginnaaw kër wala eh, man yu bu génn dégg nga ak yi mel noonu bu fekkee laab si tilim tilim muy taharatu xabas moom lañuy wax ne dégg nga mooy yére yu tilim nga warko koo laabal bala nga koy jullee dégg nga wala yasiqul jami wala yasiqul wér al jamiu mboole ñaar yi nga xamante ne moom la wax illaa ludul bil i taahiri si ndox mu laab al mutahari bay bay laable ndox bu laab te mën a laable ndox mën na laab te du mën a laable mu wax la waxuwa te mooy allazi ndox ma nga xamante ni lam yataxayar soppeekul lawnuhu mooy eh, xeetam ba aw taamu lawnuhu xetam ba aw taamuhu wala cofkaam ba law lawnuhu mooy melokaanam ba melo ndox ba aw taamuhu wala cofka ba aw riixatuhu wala xeetu ndox ba ñetti yi mooy melo bi eh, bi si des mooy cofka ndox bi bi si des moom mooy xeetu ndox bi yi yëpp moo tax ñu wax ne la booy jàpp dégg nga wala booy kii ndëkk la xool ndox mi ba xam yii nii yëpp melu ko ba xam bu dee kiiwu ko rek ndox moomu nekk na lu dul bima maa yu faariquhu si lu dul lu nga xam ne dina lënkaleeg moom xaaliban si noteel dégg nga ka zeyti comme dëwlin dëwlin bu duggee si ndox dégg nga mën na ndox moomu mënta làpp wasam ni ak diw ñor wat dasami ak nikk nikk buñ ko waxee moom mooy euh, mën nañ ko wax moom mooy graisse kulli yii yëpp wal wasaqi ak yuq yuq buñ ko waxee moom mooy yàq euh, ki yooyu ñuy muucu si si yàqu yàpp léeg loolu bu duggee ci ndox mun na ko changer xet bi wala mu changer cofka bi wala mu changer melo ba dégg nga was saabuuni ak saabu tit ndox mu am saabu mun ta laab wal wasaxi ak tilim tilim dégg nga ndox mu tilim bu salte mun ta laab wanax fii ak yu nuru yi wala basa déet nag bit turaa bi ci suuf bu fekkee ndox bu nekk ci suuf la kom lu mel ni géej wala dex yi ni mel yooyu dagan na mën na laabal wal xamey ak ban ndox moo xamante ne ci ban la nekk ndox mu nekk ci kaw ban ndox moomu ndox mu set la was sabax was sabaxi ak ñind ñind nag buñ ko waxee moom mooy ndox moo xamante ni euh, lu mel ni euh, ndox moo xam ne dafay sax si ñax yu yu vert si ñax yu vert loolu ñax mu vert boo xamante ne dafa am dafa am am kii am am am am ay ay am ndox si kaw léeg-léeg nga gis ko loolu ba nga xamante ne euh, mënut a changé melo ba wanax wi ak yu nuroo ak wal xas yi laso laso buñ ko waxee mooy joos buñ ko mooy laso rek mooy xeet yooyu du weex yooyu nga xam ne ndox mi day tegu ci kawam wa wi yi ak yu nuru yi yépp ñu jàll si bunt bi ñuy wax buntab sobe comme jóge nañ ci buntab laab ñu ngi jëm ci buntab sobe mu ne ida taayanati bu ràññeekoo an najasatu sobe dégg nga nit bu gisee sobe si yëreem walla sobe taq ko wala mu gis yaramam fu mu munti doon bu ko gisee xusi la na raxasee maqalluha place ba mu ko gis dégg nga fay nil tabasat bu lëntee nag xusi la na raxaseef sow bu yére ba kulluhu lépp bu fekkee xamul fan la si yére bi te gis na sobe bi xamul fan la nekkee si yëre ku laay xam na ni sobee ngi si yére bi boobaa na na yëbbu na xooj yëre bi yëpp si ndox mi raxas ko wa man sàkka fi asaabati najaasa képp ku si wa man sàkk képp ku sikk saaka fi asaabati najaasa si dañu sobe sobe nadaxa na wis dégg nga wayn asaabahu ndem dal na ko shay un dara sàkk muy sikk saaka fi najaasatihi si sobe fa fala natqa dee su ko wis alayhi si moom bu ko dara dalee wala ndox wala dara xamul ni sobe la wala sobe bu boobaa dee loolu waaye bu xamee ni sobe la dafay dem wis lool wa man tazakkara képp ku fàtte an najasata sobe wa huwa fekk moom fi salaati mi ngi si julli bi bu fekkee da nga julli fàttaliku sobe am nga sobe wala nga fàttaliku sa yére taq na wala am nga sobe wala nga am nga sobe wa huwa fi salaati te fekk mi si julli ba xataa na dagg dafay dagg julli ga illaa ya xaafa ndare mu ragal xurujal waxti génn waxtu ba waaye loolu am na ko dàq li am solo daal mooy li wér na dagg julli ga si saa bu daggee julli ga nag e, mu dem faxe laab dogu mën a julli parce que ku laabul e, munoo jaamu ba nangul la waman sàlla képp ku julli bihe si siksoɓe na siyandi ko fatte wata zakkara mu fatte likku ko bada salami ginnaaw bi nga xamante ni sëlmal na aada dafay baamu fil waxtu sa waxtu ba dégg nga bu fekkee kii julli dafa julli bi mu jullee ba pare si lay fàttaliku ne eh, sobe bi am amoon na sobe bu booba bi mu jullee ba pare la ko fàttaliku bu booba dafay dem laabi ji bu laabee ba pare nag aada fil waxti dégg nga mu baamu la nga xamante ne euh, moom la jotoon julli si ay waxtu foofu dañu yem ba beneen kii incha allah